15 juillet à l'arène nationale le retour extraordinaire de Petit Production mbokk yi lamboo ko soxla woon moo tax mu ñëw andil leen ñaari xale yi nga xamante ne nii lamb daf leen namoon lool Siteu bu Ngor lastakiri bi doomu Ngor la jël daal di koy boole ak alin Seye numéro 2 doomu Waalo waaye mbokk yi Petit Production yemul foofu ndax Boucher Ketchup du xam ngeen ko daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak Ziza bu Pikine Benteñe écurie Fass moo war a jàkkaarloo ak usine bu Nangalma première édition drapeau Malick Fall borom service continental waaye bu leen fàtte benn yoon mbokk yi Milki Zone dina fa jàkkaarloo ak Modou Anta numéro 2 drapeau Serigne Alla borom Bambey waaye mbokk yi Bou Siteu champion bi dina fa jàkkaarloo ak Ramdan Junior drapeau Modou Fall commerçant bu mag ca marché Petersen Ngoma jàkkaarloo fa ak Pro Lavage drapeau madame Aydara Cheikh Mbaba numéro deux jàkkaarloo fa ak Zeus Sa Jaxaay dina fa jàkkaarloo ak Caatu Ndakaaru Boy Grand Yoff jàkkaarloo fa ak Rajaxe Torodo ak Bébé Dégol mbokk yi Production nee na dafa bëgg a bégalante moo tax mu ne supporter 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 000 francs sponsor yi gunge Petit bokk na ci Nokia automobile Ndiaye global business Xelcom automobile King Boisson Pro Lavage ci le 15 juillet mbokk yi ci arène nationale ak Petit production moon nañu ko waaye dinañu doyal trop ci lamb ngi nii ak ki xamante ni mooy fëgg la wala ba suba ah aw kaay noo kaay bu dem noonu dama gis loo xam ne dafa xaw a jaaxal si ta wala ba tey si ta ba tey génn def innovation bi génn tuus waa Ngor yëpp jàkkaarloog moom li lan la. lii du leen lu dul ab cër. àdduna doon Baye Fall rek a wóor Baye na du teggin ka ne fii nga bokk wala fële nga bokk mais Baye Fall mooy faale ñëpp suufeel sa bopp moom nag loolu la melax ñëpp boo xoolee fii si biti paaye meere yëpp a fi xale magax ndaw góor jigéen te la moom rek nga jox ko moom la joxe moo war ñëpp wuyuse ko. mais dafa dafa am lu ñu lu muy lu muy dégager fukk bu muy dégager tey confiance bu rëy. waaw dafa am lu ñu doon wax rek lu ñu tàmm wax ne ngor dafa bokk si làmb gars yi gëmuñu loolu bàyyi ñu loolu xel mais tey ku setaan lii di nga xam ne ni ñu wax dool dëgg la te lii tuus rek la. Siteu di bëree ku loo xam xam ni nga mel ak Siteu Siteu na bëree tey nga toog fii naka nga ko na dund. wax day metti moom wax dëgg neex yàlla moom day metti moom waaye gaynde gi ñu gemb moom ñun xam nañ ban gaynde la quoi <laughs> gaynde mais te dafa mel ni nag ñu ci bàyyi nee nañu euh, fëgg la moo doon yokk si te fit est loolu du ko manqué. non man moom moo may yokk fit moom barki maam Serap Fall gaynde pire la man déggoo gis nga kii taxaw ne sax bàyyi bàyyi mi nii barki Serigne seex Roxee Fall borom digal bu ñu ko joxoon Aliou mu jëflante moom ba deret lan nga ko wax na ko ko conseillé mu bëre waaw làmb ji du làmb dara lu dul dal teey ñun moom dal teey rek am li ñu bëgg waaw dundu Baye Fall bi mooy dal bu dalee teey rek am li mu bëgg lépp barki maam Serap Fall loo ci yokk li ma siy mooy Siteu moo defar tey Ngor bu demee ba Ngor doonul milieu doonul banlieue à cause yàlla à cause de ginnaaw yàlla ak yonente bi Siteu bu Ngor la dalay lay gis ngay def ay ñaawteef mu xëcc la fu kenn nekkul di la yedd à cause sa yaaya sa pap ku yeddu ndax moom soppi na fi ay doomu aadama yu bëri ñu ñëpp jàppoo ne dañuy yaaxu mu jëw ñu yaaxu ndax kan Siteu dalay fekk fu kenn nekkul mu lay wax lii jëriñ sa yaay ak sa baay ñun loolu moo tax su Ngor tey si du dara Siteu daa am fu ñu ko teg ndax moom da am fu ñu teg dafa bëgg ñun ñu teral suñuy waajur loolu moo tax ñun ñu bëgg a Siteu dénkuñu lu dul suñuy waajur moom sax dénkuñu boppam ay waa suñuy waajur rek la ñuy dénk moo tax ñun mënuñu am fayu Siteu. tey xam ngeen bés bi xam ngeen bés bi tey. bésu tey bii nii non ñun passé nañ beneen bés la ñuy xool bu bu suba bi sax noppi na Karba moom waxatuñu ay waxam waaw ñun dañ na suba ñun nii lañ Siteu fëgg lañ ceeb bi naaj naa pare de ceeb bi naaj naa pare de mais. ah ooyul léegi rek ñu def nii da ngay jékki. <laughs> lan la ceebu jën wala ceebu yàpp. ceebu jën. ceebu jën waaw. waa Ngor ngeen. waaw jënd lan moo ci dem. ah waaw kii coofa ngi si sëdd waaw am na nay métti tamit. def ko niñ ko daan defee rek di ñaan yàlla may ñu rek bu soobee yàlla. Siteu di ko ñaanal rek yàlla jaarale ko fu mu daan jaarale rek incha allah ndam rek si kaw sa kanam rek parce que xale bu yaru la bu am cër bu joxe cër yàlla na ko yàlla jàppale rek incha allah jaajëf waay. Daxaar moom day am daxaar lii moom la lii dixaar la dixaar. Ah. mais tey naka ngeen yebee Siteu. Eh, Siteu moom niñ ko yebee moom. <laughs> gannaaw mënu ma wax mënu ma wax ñu ngi ñaan daal yal na yàlla may ndam lu sedd guy moo baam yëpp moom lañ koy ñaanal yal na leen yàlla may ndam te bu soobee yàlla dañ ko am xale yu baax lañ xale yu yor ne jox mag cër macha allah te am ñaanu waajur doo ñàkkoo dara di nga am lépp macha allah yal na leen yàlla may ndam. yow suukar bi fu mu jëm. suukar bi fii lañ koy def si daxaar bi. si dixaar bi ñu ñaanal suñu mbër xale bu yaru ñoo dëkk fii xale bu yaru xale bu neex a dëkkal xale bu baax xale bu yaru ñu koy ñaanal ndam yal na yàlla may daraja Seydina Mouhamed si barke Serigne Touba xale bu baax loolu laa. yaa ngi ci ceebu soow bi ceebu soow baa ngi tey ne tey naka ngeen naka ngeen yebee si tëmb dem instant. yal na ko yàlla may ndam rek. billaay yàlla loo koy wax may ndam ah. lan ngay wax si te. mu xeex wala mu bëre. mu bëre rek. digaloo ko mu xeex. déedéet. parce que xale bi dafa baax. bu ko ñu dóor. non non. daa bëgg mu jàpp ak daal. waaw. ah defe naa loolu am na solo. yaay Abou Ndiassé Siteu rek xale bu yeru baax yi yeru sita bu sukkee si boolu ndab boo ko tegalul ndawal du ko laal barke allah ji fàllu. bu sukkee bu sukkee si boolu ndab boo ko tegalul ndawal laal ndawal li ba jóg Siteu laa gis si xale boo xam ne toog jàpp ndab li ba añ ba suur jog du wax du saqat yàlla nañu yàlla may ndam lu séddu gi kese. mais tey lan nga koy lan nga koy yabee suy def. Siteu na ànd ak dal parce que mag lay bëreel na ànd ak dal te Siteu fayoo boppam xale. Alioune Seye du mag de. Alioune mag la kay ak ah, kooku di moom na ko yàlla nañu yàlla may ndam rek. parce que koy mu xeex wala mu bëgg. na xeex toog si kawam ñibbi sa waat ngor ñu seete ko barke allah ji fàll. maa ngi koy Siteu départ bi laa bëgg Siteu a ngi noonu Siteu bu Ngor.

jimbo Thank you. tey la ko mujjee.

dem taa ngay dem Thank you. production dellu si na le 16 juillet 2023 ci arène nationale muy première édition drapeau Abdoulaye Djigo di dox ci diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé diggante parcelle ak jàmba gën combat bi nga xam ne moom la amateur yi di xaar combat spécial Karbala ak Fëgala bu Ngor première édition drapeau Wan Sow responsable politique ci Parcelles Assainies bébé rëg-rëg ak caatu Jolof drapeau Ifra borom Al Amin service Ouskara ak vite fait drapeau Moussa Niang di responsable politique sa bopp armée 2 ak Boy Silla drapeau écurie de lutte du Sénégal di yóbba diggante Momo ak Ndeye Fatou Adama Dialy ñu fas yéene wàcc stade bu dee supporter 2000 francs amateur 5000 francs bu dee loge officielle 10 francs bés baa ngoog diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé lii ku ko tardé tardé lu rëy